la ñuy woowee histoire bu ñu bëri xamula ci diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall mu am ñu ciy dox di waxtaan guddi ak bëccëg ñu ciy dégg lu nekk lu ci nekk dëgg ak lu ci nekk ay werante loolu soxol ñaar ñi président de la république ak opposant politique bi ñoom ñaar nag ñu leen di dox ñoo di Alioune di militant buy saytu ak ak yelleef doomu aadama ak architecte bi di Pierre Goudiaby Atepa lu ñuy waxtaanee nag mooy calendrier électoral bi di soo ci wàllu politique ak institution yi Jeune Afrique di magazine waxtaan bu njëkk bu ñu amal mooy xool nu ñuy def ba date bi nga xamante ni moom la ñu jàpp di 15 décembre 2024 ñu indi ko mois de juin wala juillet ci at mi ñu nekk su nekkee ni ñoom d'accord nañu ci fi mu ne nii nag ay waxtaan am na ay sottante xalaat loolu mën a jigéele ki nga xamante ni moo di président Macky Sall ak Ousmane Sonko nee nañ nag ki waral mbir mi yëpp du kenn ku dul Robert Bourgi juddoo fi ci Sénégal bokk ak ay réseau kii di Pierre Goudiaby pa journal bi fësal ko ab laaj lan moo tax ndaje yooyu yëpp daanaka askanu Sénégal kenn yëgu ci dara tont bi Jeune Afrique def nag mooy Macky Sall ginnaaw bi nga xamante ni jël na dogal daq election yi dafa bëgg dal ñëwaat fi ci Sénégal fi ñu koy jaaree nag dem ci élection yoo xamante ni ñëpp a ciy bokk bàyyi ki doon jiite Pastef di Ousmane Sonko wante bàyyi gi ñu ne dafa am ci lu muy lalu ci dëgg mën nañ ko jaare ci benn loi d'amnistie libéré ci sax ki nga xamante ni moo di Bassirou Diomaye Faye jamono ji nag anaka présidentielle yi ñu jëm naneen lay demee ndaxte lépp mën a xew a loolu yëpp nag ñi ko sumb Alioune Tine la ak Pierre Goudiaby Atepa mbiri Karim Wade sax ñoom waxtaane nañu ko